alfayda mooy lamiñu pay bi nem alfayda teew na jataay bi dana ko toxal àggale ko ci napp bépp taalibe boo xam ne bii mi ngi askanu ci pay bi rawatina fan yi nga xam ni taalibe yi ñu ngi fi daje bàyyi ko ci barab bi fasantikoo buñ demee danañ ko jot li ñi nga xam ne jotuñoo teew mooy lamiñu pay bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun jaalallahu fi musibatina wa abdalana xayra minha a tey bi bés bu métti la bu diis la ci ñun waaye danañ ko muñ ndax ku ñàkk yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñàkk cheikh tiyaani ñàkk a abdoulaye ñàkk baye ñàkk seydi ali cissé di ko muñ tey ndax sunna la toppante la cant ak ngërmande yoo xam ne dañ koy jëmee ci alfayda alfayda dëgg-dëgg karaamaay bay moo ci feeñ nag alfayda wax dëgg yàlla rajo yu bëree ngi fi waaye ñëpp yéen la ñu déglu képp koo xam ne ki yaa ngi déglu ay faydu doo ci jëlee lu may gën a yokk ak mbëggeel ci bàyyi ñu ngi rafetlu seen tax taxawaay bu baax seen liggéey seen yitte wax dëgg yàlla te neenalu leen ñi ci sa système képp koo xam ne kii xew la na rek di ngeen dem fekk ko jël xew ma jottali ko loolu itam li nga xam ne ñu leen di sant bu baax ñu leen di gërëm ñu ngi fetlu seen taxawaay di ñaan yàlla gën leen a dimbale incha allah dana mujj nekk télévision boo xam ne bi niñ ñu koy déggee noonu lañ ko gisee loolu moom soreetul sax incha ñu ngi sant ñu ngi gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di am naqar ci li nga xam ne moom la yàlla teg kaw ci dund ak nekk mu jëm fekk ci kanamam dund bu gën bi na dëkkaale ko baayam dëkkaale Cheikh Tidiane ak yonent bi sallallahu alayhi wa te mbokk yi di jaal mbokki yëpp di jaal nag suñu kilifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass moom lañuy jokkool sax dañu dem ba Nigéria fekk fa alif bi ci tiis bi am tey asalaamaaleykum. alhamdulilah maaleykum salaam kilifa gi ñu ngi lay ziar bu baax Niass. alhamdulilah salaamaaleykum Ibrahima na ngeen def. ñu ngi sant bu baax Niass alhamdulilah. macha allah ñu ngi lay jàll euh, ki ñu bokk te mu wàññeeku démb nga bëggoon nga yëkkati ay kàddu rek jëmale ko si taalibe yi ñu déglu. ñu njëkk wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nopp la boo xam ne ñu ngi koy dund ak yéen nañ nopp bu baax wax nopp bàyyi bu baax yàgg liggéeyal bàyyi ñun daanaka dañoo ne ko rek fekk ci kanam bàyyi sa tàggoo moom booba ba léegi ñu ngi nekk ak moom liggéeyal na ko parce que liggéey bu nekk dabalal na ko oto daanaka ba mu àndee ak bàyyi béréb bi bàyyi di génn àdduna ma sa tàggoo moom benn yoon foo gis bàyyi rek da nga ko fa gis bee gannaaw ba mu génn àddina sax dafa mujj bàyyi këram rek dem nekk ak moom daanaka wéer moo di li nga xam ne moo ko jëlee foofu mun nañoo wax ne daal kàddu bi mu ànd ak bàyyi ba léegi ba sa tàggoog boobu benn yoon nekk moom nekk ni moo xam ne lépp dafa rafet mu di suñu bàyyi joo ne mun nañoo wax ne ñun ñëpp moo ñu yàlla. waaye bu leel la ku baax la jaamu yàlla bu baax taalibe baay bu dëggu boo xam ne yàgg naa ànd ak moom di ko liggéeyal teew itam am na yërmande ñu ñëpp mën a sedd ñu ngi koy jaale bokk yi ñu koy jaale taalibe yi ñu ngi koy jaale waa kay bi yëpp fi ñu nekk lay dafa xaw a sore foofu lool ñu suñ nëbal yëpp daal moo doon ñu ñëw teewee si bés boobu ak yéen waaye nag métier bi daal ñu ngi koy bokk ak yéen ñuy ñaan yàlla fa yàlla dëggale ak bàyyi ki nga xam ne moo doon kalifaam moo doon wasilaam di sëriñam nekkam di léppam yàlla fa yàlla dajale ak moom ci barfak Cheikh Ahmad Tidiane nekkale leen ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci leen dekkoy daraja élira ci maqaadi sirqin inda malikil muqtadir salaamaaleykum wa rahmatullahi Alfayda àgg na fu nekk ci àddina du caagee nag fii ci Medina walla Kaolack wala Sénégal waaye fépp foo xam ne fii taalibe bàyyi nga fa Alfayda rek moom la déglu ndax moo leen di jokkale ak pay bi di sant directeur bi ci xalaat bu rafet bi nga xam ne moom moo ko xalaatoon mu doon xalaat boo xam ne ñëpp a ngi koy rafetlu ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy ñaanal yàlla fas nañ yéen incha allah dimbalanteeg moom ci mbir mi mel ni mu ko bëggee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 jàppandi ci juróom-ñeent fukk yu tombal benn kaddu gi di àddoo fii ci Medina Baye ngeen ñuy teewloo ci daaru mbi téye nag tund ya ko wër mbokk yi dal leen ak jàmm ceetu xabaar yi ci kàllaamay kocc ci yàttal bu ngeen taxiloo rek ma jukki leen li ci gën a li ci gën fës nag bokk na ca dëkk bu sell bii di Medina Baye nag sëngéem na ndax nag ñàkk na xalifaam bu tedd ba di Maulana Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ni ki démb lu nu mel daañu ca dikk ci biir euh, xibaar yi waaye Samba Boy yi nag defal ci nañu seenug euh, mënin ndax nag dañoo bàyyi ba àll ne sendew ñu songu conseil départemental bu Kaolack euh, ci waxtu woowu lay tamit ñoom waaye Samba Boy yi saam coof ak jàpp gaawaan moo bëgg a nekk seenug daluwaay ndax nag la ñu fay dogaale ak it di fa violé bari na ba yegg ca loolu lu ni mel daañu ca dégg Cheikh Tidiane Diagne ci biir biir xibaar yi bu ñu lépp yembe mbokk yi dañ ca toftal yeneen i xabaar ñaareelu xaaju xabaar yi xabaar yi bitim réew lay doon xabaar yi tàggat yaram ak li yéene kaay yi xëyee tey jile El Hadji Ibrahima Gaye ci wàllum xarale gi frim fànce gi bu nees ki Le journal Ngoné Ndiaye moo nekk ci waxukaay gi kaddu gi di àddoo fii ci studio Alioune euh, Momar Lo mbokk yi asalaamaaleykum dal dale nag jàmm ci bile jotaayu euh, xabaar dañu koy dooree nag ak naqar ak tiis wañu euh, fanaano xalif bu tedd ba di Cheikh Ahmed tiijaan Ibrahima Niass nekkoon xalif bu Medina Baye nag làqu na ni ki démb ci diwaanu Ndakaaru lu ni mel nag nekk tiis bu rëy rëy ci pays bi ci Sénégal gépp waaye tamit nag ci umma islamique bi yëpp ba tax na nag Cheikh Boubacar Niass di doomam andi ci ay kaddu yee séddeeg njaal ñu ko ci téléphone El Hadj Ibrahima Gueye waaw gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla yor ci suñu musiba te fuutal lañu li nga xam ne mooy di gën di ñàkk ñàkk nañu lu lislaam ñàkk na tariqa ñàkk na alfaydu ñàkk na mhm. mën na wax ne àddina bi yëpp ñàkk nañ ñàkk nañ nit koo xam ne ku bàyyam gërëm la ku ay magam gërëm lañ képp koo xam ne nekk na xalifatu cheikhul islam rek gërëm na jëmm ji nga xam ne moom lañ tàggoog tey muy nit koo xam ne doom la ci côté Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu waaye dafa jël doom jooju jëndee ko ak taalibi addina yëpp xam ko bu ko yàlla defee mu toog ci xalifa ak ji gi dëgg-dëgg somm soppi nag kanam yi mari na wax dëgg yàlla am ci ay soppi yu bëree bëree bëree bëri mun naa am nag fi la yàlla demale ak dundam waaye dencaguñ ko waaye mën naa wax ne addina yëpp a koy jooy ndax njëriñ bi nga xam ne moom la amoon fii ci xalifa gi njëriñ gi njëriñ gi nga xam ne moom la amoon ci doom ba pare jël doom googu jëndee ko ak taalibe nit ku oyof la woon nit ku wàccee boppam la woon nit koo xam ne képp nekk wàcce woon na la sa wàccuwaay kilifa la jiit la waaye du def dara doon na diisoo nag ay rakkam diisoo nag ay doomi baayam dëgg-dëgg ñàkk nañ kilifa gu mag. moom dafa tawatoon ah. fan yi waaw tawat bu gàtt rek. Hmm. tawat bu gàtt rek. tawat bu gàtt rek wax dëgg yàlla man naa wax ne maa fi daan toog man ak oustaz Barham Niang di ko wétteele waxtu wu nekk nekk ak moom gannaaw bu mu jugee takkusaan ba gannaaw gee ñu dem. yàlla def oustaz Barham Niang yaramam dafa sutante mu dem Dakar. xam naa fan yi mu fi nekkul. wax dëgg yàlla am waxtaan woowu xam koo manqué manqué waaw ba xam naa bokk na ci lu ko lifin tawat bu gàtt la rek fi ñu ko yóbbee Dakar daal benn fan la fa am yàlla def li ko neex ah bon bon Dakar la mujj nelawee Dakar la mujj génnee àddina mm-hmm. ci hôpital clinique principale waaw fa la génne àddina waaye dem na dem boo xam ne demin bu sedd la wax dëgg yàlla am sonal kenn wax dëgg yàlla waaw ñu la koy jaal ñas jërëjëf yàlla yàlla nangu jaal maa ngi koy jaal àddina yëpp manit mi ngi noonu mu nekkoon nag ay kaddu ya buuba mu euh, papa Cheikh euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass moomee nag moo doon kan euh, fi ko bàyyam ba tegoon ak it nag li mu liggéeyal xadra bi dañ cey teewlu seeday oustaz Baye Mar mi ngi ci micro El mu Mouhamadou Bachir Niang. waaw ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirna fi musibatina haza yonent bi moo ñu waxoon. ne waxtu leen musiba dale ngeen wax ko te musiba gën te rëy ci pays cheikhul islam xaaj ibrahim ñu ne xalifaam uy dina boromam waaye nag musiba la moo xam ne ki ñu ko teg te moom rek moo ko mën a tege mooy ki nga xam ne moom rek moo eyoo ñu sant ko ci loo xam ne lii dafa métti muy génn ak àdduna Mawlana alxalifa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim ñas ca Ndakaaru Eh, di ñaan yàlla yàlla desal leeram ci njaboot gi bokk na ci li tax ñu war a gën a sant yàlla ci mbir mi gannaaw guñ ko méttitloo ñaanal ko yàlla ñaanal njabootam muñ te njabootam mooy àdduna bi yëpp toppam Cheikh Ibrahim bokk na ci li nga xamee ne moom la ñuy sante yàlla ci moom mooy yàlla mi nga xam ne moo ñu joxoon kilifa gu xem noonu ci dimension boobu nga xam ne moom la amee woon te yàlla defoon ko muy koo xam ne ku ko mate woon la ndax ci anam yëpp la ko matee woon nekkoon na koo xam ne way juróom bëggoon la ñu ngi sant yàlla ci xéewal gi nga xam ne moom la ñu joxoon ak taxaw bi nga xam ne moom la taxawu bi baayam bi taxaw bi nga xam ne moom la taxawu njabooti baayam bi ndax ñu ñëpp ñu ngi fàttaliku gàmmu daaru gi te teraanga ju rëy jim teraloon ñeenti jigéen ñi gën a mag ci pays bi di doomi baay te baayam moo ko wax ci gént xalifa bu mag dem na xalifa bu bëgg baayam dem na xalifa bu bëggoon pays baayam bi dem na xalifa boo xam ne amut benn noflaay ndax taxawu pays baayam bi dañuy euh, des ba tey ak oustaz Baye Mar mu dikkal ñu nag ca kàddu ya Cheikh Mouhamadul Mahi njëkk a euh, gannaaw euh, dëdduk xalif bi ànd ak ni tamit moom oustaz Baye Mar moomee daal dinay dikkaat ba tey rek ci taxawaay ba xalif ba amoon laataa mu koy ñaanal nag ngir bayam ba teexi ko oustaz Baye Mar ak mu Hadji Mouhamadou Bachir Niang mu ngi ñaan yàlla yàlla yokkal ñu leeru cheikh na ahmed tijaani dajale ko wéy juróom te amuñ ci sikki ndax daje nañ fii ci zaahir noonu la ñuy dajee ci baatin te moom la xalifa bi mujj a wax ne mbir mi yéen la kon yàlla nañu yàlla may ñu dégg loolu te dimbale ñu ñu nekk kooku ñun ñëpp ñu nekk ñooñu pour ñu mën a am ngërëmal borom pay bi ci liggéeyal pay bi ak sellal Mawlaay Alxaaj Abdullah Ibrahim Niass yàlla na yàlla yokk leeram ba xam boobu lay tëjee daf ma waxoon ne bàyyi sellal lu jafe la waaye ku ko def fooyam yow la neex yal nañu yàlla may sellal mboolem topp cheikhul islam haaj ibrahim talee ci xalifa bi ba ci man mii di wax gën cee xeebu wa ma zalika ala allahi bi azizin te itam ñu ngi sant yàlla ndax la ko baayam digoon jot na ca ndax keroog bi bàyyi di dem London moom ci boppam moom ma ko nettali nee na keroog dafa fekk am yum ko doon topp tooloo ci ron akaziya gi nga xam ne moo nekkoon ci buntu kër Baye ci jëppal bo Baye rek moo am kër ci waa na yi ci lañ xam ñun te néeg ba mooy néeg ba Baye doon nekk ak saal ba te mu bo boobu bugguta fanaan fenn fu sori Baye di ko euh, du ko uyu mu ne moo tax mu daan tëdd ci ron akaziya bu foofu waaw nee na bi muy tàggoog Baye Baye di dem London ba jox ko lim ko yónni woon yëpp ba tàggoog moom tàllal loxo mu ñaanal ko ba mu bunt bi da ko bàyyi ne ko hee mu ne ma geesu mu ne ma yow moomu laa wax ma ne ko ñes mu ne ma sa ñaari mag ñi xam nga leen ma ne ko waaw mu ne ma kanakan ak kan loolu yëpp confirmation ak woon li muy jénkaane si lu am solo la mu ne ko kanakan ak mu ne ko alxaaji abdullahi ak ahmedu mu ne ko nang leen déggal nang leen topp nang leen dimbale soo ko defee kenn du dem nga des wax dëgg yàlla kenn demut mu des waaye dem na fa baax amee njëriñ lépp lu yàlla am ci mbaax lu muy terale ab jaamam yàlla na ko yàlla terale allahuma amin mu nekkoon ay kàddu yu Oustaz Baye Mar dañuy des ba tey nag ca googule mbir Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima moo moomee nag dëddu ko ñëpp soppoon la ba tax na rek ñu daan ko ooyee papa Cheikh papa Cheikh ca naal yu rëy papa Cheikh ca tabega ana mooy kan juddoom jàngam jàngaleem ak njaar-jaaram El Hadj Oumar Cissé moo ñu koy baaxee Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass turam gënoon a siiw ci moo nekkoon ñeenteelu maam El Hadji Ibrahima Niass Baye Cheikh Ahmed Tijane Ibrahima Niass turam gënoon a siiw ci papa Cheikh mi ngi gane àdduna ci atum 1932 ca Koosi Baye di ab dëkk bu nekk ca ginnaaw Kaolack soreeku lu tollook juróom-ñeenti kilomètre waaye juróom bu jigéen ak Sayida Mariama Ñang waaye juróom bu góor Baye Niass tuddee ko Cheikh na Ahmed Tijane mi sos tariqa at Tijaniya mi ngi jàngee alquran ci loxo boroom xam-xam bu mag ba ak Cheikh Rabbani ca Mauritanie ginnaaw njàngam ci loxo Cheikh Omar Touré bi mu dellu see Kaolack jaar na tamit ci loxo Cheikh Amadou Thiam ak Serigne Ali Cissé ngir rafetal xam-xamam ci wàllu téere yu xonq yi muy majalis bi mu jeexalee am njàngam mujj na doon loxo ndeyjooru waajuram Baye Niass daan ànd ak moom ci tukkeem yu bari ci àdduna bi li ni mel sax moo waral mu déggoon xaw sa lool anglais français ba ci arabe ginnaaw ga waajuram Baye Niass daal di koy dénk dëkk ba ñuy wax daaru mbitéyeen ngir mu war ko suqali di ab dëkk bu nekk ca ginnaaw kër soose département bu Kaolack nitu social la woon baykat la liggéeykat la boroom xam-xam jaamu yàlla liggéeyal cheikh al islam alxaaji Ibrahima Niass rawatina lépp lu jëmale kanam xabara bi li ni mel moo tax mu taxawal ay entreprise ay chantier liggéeyu am solo mu sumb ko ci xabara bi si bi mu nekkee xalifa bokk na ca fexe moderniser dëkk bu sell bii di dina bàyyi bokk na ca rénovation extension bu jumaa ju mag ju Medina Baye naka noona tamit këru gan bi daloo ko ba tey bokk na ci liggéeyam moom Cheikh Ahmed Tijane Ibrahima Niass mooy yeesalaat jamiyatu ansaaru diin bi nga xamante ne juróom bi moo ko taxawaloon ci atu 1940 Cheikh Ahmed Tijane Ibrahima Niass tabax na fi ay daara ay école ay poste de santé yu bari fii ci réew mi waajuram bu góor bi mu làqoo ci atum 1975 dafa topp ci ginnaaw ay magam daan leen liggéeyal déggal leen lool bokk na ca alxalifa alxaaj abdullahi ibrahima ñas ak alxalifa cheikh ahmed daam ibrahima ñas lépp ci topp ndénkaane waajuram ba cheikh ahmed tijaan ibrahima ñas bindkat la woon kaatib la adib la shaair la woon mool na ay téere bàyyi fi su gàmmu jotaan fu nekk la taalibe yi bàyyi ko ci àdduna bi ñëw medina bàyyi rawatina ca këram Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mi ngi wàcc liggéey guddig dimanche jàpp altine ñaari fan ci weeru août 2020 ca Ndakaaru ginnaaw bu néew bi yegsee bi deux heures jotee ba tegal trente minutes ñu fas yéene ko jébbal boromam ci ndigalu ak kilifa yi mi ngi amoon juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett ba tax dogal bi ni mel nag tax Medina Baye senegaal umm islamique bi yëpp nekk ci naqar ak tiis mu metti lool ndax damm-damm bu mag la ci xadara bi ci diine ji rawatina senegaal seede bi benn la laa biram bëri xam-xamam doon liggéeyal xadara bi naka noonu diine lislaam dundam gi yëpp ci liggéey jaamu yàlla ci la ko jeexal xanaa rek ñuy ñaan yàlla taaf ñu ci barkeem te xaare ko aljana. xibaar yi ci Alfayda ñu daal di àddu nag daal di jëmee ci leneen lu ma leen junjoon ci boppu xabaar yi ah, daluwaayu conseil départemental bu Kaolack nag la waay Samba Boy yi song rek ni ki barki biig ci guddi ah, ñoom nag waay Samba Boy yi ba ñu fa yeggee dañoo yeew gardien ba ba mu ne ñodd waaye tamit nag jël fa ay bagages jaxase barab ba El Hadj Ibrahima Gueye jokkoo na ci ak président Baba Ndiaye. barki dem si guddi yi xam naa ne guddi gi lay nekk ndax dañu gardien bi nga xam gis ne gardien bi dañ koo takk yeew ko mu nekk si bureau premier secrétaire élu bi moo ko tekki deer ñi au commissariat ñi ñëw wër bureau yëpp si ndigalu préfet adjoint préfet fekkee ko ñu xool dajji nañ bureau yu bëri yóbbu nañ fa aussi ay ordinateur yóbbu fa ñaari poste téléviseur muy guleet ci conseil bi yàq nañ fa ay bunt ñu wax loolu la indi yu bon la euh, ñëw def loolu donc euh, commissariat bi nga xam ne ñoo liggéey bi ñu commissaire central du Kaolack aussi jiitu commissaire euh, Diop ak commissaire Ndiaye ñoom ñu ngi def liggéey pour seet ñoo ñu def ñaawteef yooyu euh, ñu ngi leen mën a jotee tee teg leen si yoon. lañ fa war a jël xaw na takku de. waaw xam naa ne xam nga koy ne par moom xaalis nekku fa donc fu ñëw di war xaalis da nga temps mais lañ fa jël ay ordinateur la seeg jël nañu ordinateur équipe bu ressources humaines bi ak bi nekk sama bureau yenn bagage yi jaxasoo nag xam naa ne foo ko ñu jaxase bagage yu bëri yàq si Modou Gakou bu am lu ko fa jël nañ ko yenn yi ay yàq la mooy yi xam naa boobu dañuy wër lu ñu am donc li xam naa ne comme position bi danañ li seen liggéey pa li des mooy bi ñu changé waatee bagage yi xam naa si la ñuy xool lu dem ak li ñuy def lu ñaaw ñu def ko def na lu ñaaw mais cause de daal du institution boo xam ni kenn dafay recevoir xaalis foofu muy denc xaalis donc euh, malfaiteurs yi dañu seen baaxul waaye yàq nañu fa gardien bi aussi yàlla moo ko sutaal ne bu kay teeloon ñëw kon néew la ñu fay fekk. président euh, Baba Ndiaye ci waxtu woowee tamit nag ab gone gu jigéen bu doon def l'entrée en sixième moom la ab waxambaane nag daal di yegg ca kaw maanaam daal daal di koy wiyole yàqal ko ma euh, gone gu jigéen googee nag ma nga dëkk ca quartier saama ay mbokkam nak nee nañu daal mbir yi daañu ko yóbbu fa mbaxana doonee kenn Cheikh Tidiane Diagne ab xale bu jigéen la bu toll ki fukk jàpp fukki at ak juróom benn waxambaane bu toll ki fanweeri at bu ñu sukkandekoo ci kàddu yu ñu jot moom moo ko violé xale bi nag mu ngi dëkkoon ci quartier bu saam fii ki diwaanu Kaolack ab élève la buy def classe CM2 ci école élémentaire bu ngay fa mu dëkk Serigne Diatta kenn la ci njaboot gi. bon même pas à dix ans te mosu guddi la ko trompé. yóbbu nañ ko hôpital docteur yi nañ ko nelaw naay quelques heures na daal. fan ko fekk liggéey tamit mu doon liggéey foofu waaw dañ ko joxoon foofu muy liggéey di gone gi nga xamante ne moom la ñu violé nag ci biir hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu diwaanu Kaolack mbokkam yi sakkoon nañu fa lool soxna si ci ay loxoom la nekk gannaaw bi papaam ak yaayam yëpp génnee àdduna mu ne nag mbir mi naqari na leen lool Fatou Ndiaye métti na ma lool ndax te xale bi du dox du wax te xale bi xamul kenn maamam rek la xam li tax affaire bu gën ñoo métti yaayam dafa teel a gaañu papaam teel a gaañu mu doon am baay ñu yor ko ki nga ne mooy nejam di ko wax Cheikh Ndiaye kooku noonu papaam bi muy gaañu dafa tekki sentiram jox ko ne ko Cheikh mu ne ah ne ko takkal sa ndigg ba mu dëgg te xam ne man damay dee ayu mi mu ne ah ne ko may naa la ko su dee dee yàlla su dundee dundal la fekku fa kenn dafa fekk fa bi ni mel yoon teg ko ci a da ngeen ko yóbbu ci yoon daal. ah bien sûr pour la def xale bu mu ndaw bu mu yàq avenir am loolu aussi dafa métti def mais xam nga koo xamante ne yàlla gaañu boppam dafa gaañu affaire ah? diwaanu Kaolack nag jamono ji tembe tembe diggante Karkesam Gaawaan ak Coof ak liñ fi nemmeeku ci kaayu viol sakkan na lool bi ci njëkk mu ngi doon yoon élève bi nga xamante ne moo doon defi brevet te ñu dogale ko violé ko ca dig-digal beneen ba fan yee ca gannaaw la ab gone goo xamante ne moom itamit da doon liggéey mbindaan ci benn kër gu nekk ca diggante gaawaan ñu viole ko kii itam da doon liggéey moom élève bi yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 kaddu gi di yàddoo ba tey fii ci studio Alioune Momar Lo taaxum kaw ma ñu duppee Cheikh Imam Assane Cissé ngeen ñuy teewloo ca Daaru Salaam Dangaan ak abattoir Ndiolofène lenn ca daara ya faree foofee nag ca abattoir Ndiolofène jot nañu ay ndimbal lu ci mel ni ay dàll kii yére lu ni mel nag doomu gox ba di bàjjanu gox moo ko fa amal ñi ma yi tamit daal di ne ab responsable politique daal di nay dikkaat nag ci li waral tànneefu daara yooyee ñu teewlu ko ci micro bi yaay abattoir Ndangaan muy sama gox ndax fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo ma ñëwoon tey seet si Serigne aadama euh, moom mi nga xam ne moom mooy euh, le président cellule abattoir Ndangaan ci Serigne Daara yi ñëwoon nag indil xale yi yi nga xam ne mooy quelques yére ak ay dàll protéger leen parce que nawet bi lañ nekk gis nga ndox yaa ngi partout donc nag xale yi parfois da nga leen di gis ñu def ay tànk neen nekk ci mbedd mi def tànk neen dox fi ba marché te xam coronavirus xam ne virus bi salte waxu ci dara donc nag moo waraloon tey ñu indi leen ay dàll su ko defee bu ñuy génn wala boo nga xam ne bu ñu fi nekkee aussi mën a sol dàll comme ñëpp tànk yi di am ay picc ñàkk a sol dàll mën na leen ko jox loolu moo tax ñu xalaat ne xale yi mën nañ leen a jàppale ci wàll woowu moo taxoon ñu ñëw fi tey vraiment gën a saafante aussi tamit ak li nga xam ne mooy sëriñ daara yi pour que xale yi tamit ñu gën leen protéger ci wàll boobu des ba tey nag ca googule eh, mbir eh, sëriñ daara ya nak nee nañ daal jëf ji eh, ñi ma coor def nag du guleet naam waaye nag bi la yoon moom daal dinay doxub waxtoom ndax nag dafa tombeek jamonoy mbas mi ak nawet bi te it nag daara yi soxla woon ko lool oustaz Adama Niang moom nag moo wax ca turu sëriñ daara ya ñu jot leen ndimbal ya ñu teewlu ko ci micro noir bi yaay gan gi nu am tey mu ñëw gane si tey indi ay teraangaam ci waxtu woo xam ne ci waxtoom la ñëw soxla nañ ko lool wàccee leen ko ndax tey kuñ ci jox complète jox lay dàll dootoo ko jënd trente personnes wala quarante cinq personnes jëm kaw kon loolu dool jéego bu tuuti tombeeg nawet bi tabaarakallaa waaye ki ko def mooy soxna ñimma du gan ci ñun ci taxawaayam ndax euh, covid bi def na ci taxawaay bu am solo surtout ci jamonoy état de urgence bi nga xamee ne taalibe yi mënatuñoo génn dem yalwaani ndogu def na ci taxawaay bu am solo fukki sellil ak ñett yi nga xam ne ñi ngi tënku ci IMEX muy jamaatu ahlul quraanil karim wa sunna taxawaay bu am solo la boo xam ne soxna ñimba muy bàjjani gox ak ñim ko bokk taxawaay yooyu su amutoon problème dana am ñàkk a sol daal euh, jur ay feebar ndax ku tafli ci suuf ngay yàbbi ku yor looy sànni ci suuf ngay sànni ku pikir fooy sànni ci suuf boo fompee góom foo koy sànni ci suuf yooyu yëpp nag ay microbe la yoo xam ne dafa dajee ci suuf si kon ñàkk sol dàll li muy jur mooy jël feebar mu def ko nag indi ay dàll yu macha allah yu takku ci cellule abattoir nangaan jolofeen pour nekkutoon ay taalibe sax tout tànk rek te xam ngeen ne tout tànk moom moo jar a dañuy euh, des ba tey nag ca googule euh, mbir moom nag ñi ma moom moomee euh, jaare na ca rek daal di biral mébétam ci dëkk bi ànd ak na tamit di wax ne rek fas na yéene sampug ndëndëm ci jongante tabbeefu élection locale yi ñu jëm ngir nag lépp rek daal di jotee ci mairie bu Kaolack ñi ma coor ak noo bi yaay. su ma ñëwee ma wax leen li nga xam ne foofu laa toll ci wàllu politique ba tax na ma xamal leen que ne dinaa bokk ci ñi nga xam ne ñooy samp seen ci mair Kaolack bi Kaolack dëgg yàlla fi mu toll boo nee Kaolack nga dëkk sax da ngay xaw a am benn gàcce ndax it nag Kaolack depuis des années presque li fi changé bëriwul depuis ba ñu xamee Kaolack ba léegi benn gis-gis bi rek fi lañ fi gis aussi tamit ñu seetlu ne ci wàllu set daf ci gën a dellu ginnaaw te xam nga tey ñu ngi naan virus bi mi ngi propagé wu te yaakaar naa ne bu virus di propagé wu mu fekk euh, ville boo xam ne dafa feebar yaakaar naa ne day gën a métti ba tax na ci loolu nag du ñu toog nag jot na pour ñu jóg wax ci dox suñu tànk aussi tamit li nga xam ne moom lañ xalaat pour euh, fajee ko mooy bokk ci élection maire yi taxawu askan wi mooy li nga xam ne mooy suñu objectif dugal suñu loxo ci li nga xam ne mooy développement Kaolack jàppale aussi li nga xam ne mooy jigéen ñi ak jeunesse bi loolu mooy suñu objectif yaakaar naa ne ñu ngi delloo lépp suñu borom pour que vraiment mu yóbbu ñu ci ci kattanam en tout cas je suis candidate à la mairie képp ko xam ne bëgg na cheminer ak man maa ngi lay xaar maa ngi lay déglu euh, ñoo xam ne bëgg nañu ànd ak man pour que ñu taxaw pour jëli mairie bi ci kàttan yàlla. ñim euh, coor euh, ci waxtu woowee nag association euh, ba ñuy dàkkantalee nag Kigalisé nos quartiers di ay ndaw yu a dogo dogo doyut ci ne rek nag ñoo ngi soñu ak ñaax kan wi ngir ñu dolee sóob seen ak loxo ci liy seetal Kaolack waaye tamit nag ñu ngay tàggat ndaw ñi ngir rek seetu dëkk bi kenn ku nekk daal di koy def sa mbir Kaba Signaté di ñu gën koo xam ci bàyyi yëkkati nay kàddu jébbal ko Noa Biaye. Kaolack waaw taw bi moom bu tawee ba noppi daanaka gox-goxaan yu bëri ci Kaolack dafay xaw salte loolu nag ñu ci encore sunu mouvement bii di Kigaliser nos quartiers bëgg Kaolack mel ni Kigali ñuy interpeller encore une fois autorités yi ñu def seen wareef bu baax a baax a baax ci liiti seetum Kaolack waaye nag di ñaaxaat nit ñi tàmbalee ko sunu bopp ñu def tamit li leen war balayer aussi c'est bien mais ne salir aussi c'est mieux comme ni ñu koy defee saa su ne ñu ñaax bi waras na ko maytu bu baax a baax a baax donc di soññu autorité yi ñu def seen warugal naam waaye nag population bi tamit ñu bañ a tilimal bu baax a baax a baax waaw ñu ngi ci xam nga nag ñun comme ni nga ko waxee ginnaaw ñun suñuy poste daa disul comme autorité yi waaye li ñu mën saa ne ñu ngi ci di ko bàyyi suñu waar mooy suñuy loxo lañ yor suñu sensibilisation lañ yor te je pense que loolu ah, exploité nañ ko bu baax a baax ci koñ koñaan bu autorité yi jàppee ci côté bi gën ñu dooleel je pense que dina nekk loo xam ne quand même luy jëmale kaw la kanam la. Kaba Signaté dañuy àddu nag daal di jëmee ci euh, leneen ngir artu nag bépp jafe-jafe bu mën a dox ci diggante béykat ak kat moo tax nag kilifay dëkk bi di xel Xelcom euh, Birane ñoom itamit nag kenn ñu baaxoo di ko defee rek teel a jël seen i matukaay lu ko jitu itamit nag ñu daal di waxtaan ak wàll yëpp yi seq mbir mi euh, Moustapha Diouf premier adjoint au maire ba daal di nay àddu ci micro at bu nekk si waxtu bi jotee commune de Xelcom disposition ngir mën a éviter li nga xam ne mooy jafe-jafe yi am diggante béykat bi ak euh, sàmm bi mu nekk loo xam ne vraiment gis nañ waxuñ sax xel koom mais ci biir réew mi rek nekk na loo xam ne vraiment lu day war la loo xam ne liñ koy dégg bëri na ci au niveau de xel koom ñun dañuy jël ay disposition yoo xam ne dañ ko jël ngir loolu bañ a am suñu gox ci motuwaay yu bokk na ci ñu jëloon pour délimiter li nga xam ne mooy parcours mooy fi jur war a jaar ñu samp fa ay borne buñ koy defee aussi impliqué na ñi nga xam ne ñoo ci war a bokk waa collectif des chefs de village ak euh, notable yi nga xam ne ñu ngi dëkk bi yëpp ñu impliqué ci pour mbir mi jaaroon parce que xëy na ñoom ñoo xam ni nga xafar ko doon jaaroon dëmb muy les maires yi ak ñi nga xam ne ñoo jiite collectif de village yi mooy président collectif de village yi jiite ak yi ci biir commune bi am na beneen disposition boo wax si commune xel ko mu koy jël moo naam chaque maire bi day jël arrêté pour wax ne bu kenn ñuy gën a yàq te it eh, suñ jógee Jolof rek te am na ñoo xam ne fi dañu si directement parce que loolu day bokk ci li nga xam ne mooy indi jafe-jafe yi am na ñoo xam ne foofu la juri war a jaar loolu si waxtaan nañ ci ak euh, ñu population bi wax leen tool bi dinañ ko bàyyi fam yemoon mais ñu bëri dañ ci profité di poussaale fii juri war a jaar boo juri xëy na day mujj xat lool ba ñu am sax fu ñu mën a jaar xabaar yi bitim réew xabaar yi euh, biti réew Cheikh Tidiane Sarr ana foo koy dooree xibaaru bitim réew yi dañ koy doore ca réew mii di Zimbabwe Zimbabwe nag léegi ubbiwaat nañ li ñu wax bourse ba ci lu soxal njënd meeg njaay mi ak échange si lu jëm ci wàllum xaalis beeg yu nu mel bourse boobu nag ñu ubbiwaat ko gannaaw bi nga xam ne tëjoon nañ ko benn weer foofule ca réew ma nag ñu nar ko doolaat ni ki tey ci altine gi moom nag ñu tëjoon ko daal ndax mbas mi nuy wax coronavirus waaye tamit gannaaw bi ñu seloon daal li nga xam ne moo di xaalisu Zimbabwe boobu ñuy wax dollar Zimbabwe commencé woon na daal di wàcc di am ay jafe-jafe ñu tëjoon ko di xaar ay conclusion enquête yoo xam ne ñu ngi ko doon amal lépp soxal euh, nit ñuy mën a defaat ba ñoŋalaat seen xaalis boobu nekk foofu la ca réew mii di Zimbabwe xabaar yi bitim réew ca États-Unis la ñuy jubali wax ci opération yi nga xam ne ñu ngi ko fa doon amal ci lu jëm ci enquête boobu nga xam ne soxaloon na euh, juróom ñetti militaires yoo xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan wala sax kenn gisul leen ci ab naufrage boo xam ne maanaam ab bata boo xam ne daal dafa suuxoon kenn euh, gisul leen fu ñu jaar fan lañ nekk jamono ji ba tax daal armée américaine bi daal dooroon ci ab enquête di saytu mbir mu nu mel fan la toll waaye daal bi ñu sukkandikoo ci armée boobu nag euh, xam le neen daal dakkal nañu enquête yooyu ñu doon amal niki dimanche gi ñu nekk nag si soxal ñetti militaires yooyu nga xam ne kenn xamuñ jamono ji fan la ñu faatoo fan la ñu nekk mu nekk beneen taxawaay boo xam ne armée ba jël na ko di xaarandi fan lay wànnentu di mujjee ki gëtëm. xabaar yi bitim réew ñu wax ci coronavirus bi ci àdduna wërngal këpp ak tolluwaay bi jamono ji nag mbas mi mu ngi commencé di sonal yenn ci réew yi bilan bi nag jamono ji ak coronavirus boobu nag jàppal ne daal fukki million ak juróom-ñett ci ay nit daal jamono ji daal mbas mi laal na leen ci àdduna wërngal këpp nag ñu si jotagum ñàkk seen bakkan nag seen lim ëpp na ay junney junney junney nit ba tax na daal ñu commencé gisaat ne feebar bi mu ngi commencé waat di feeñ ci yenn ci dëkk yi lu ci mel ni daal Vietnam nga xam ne daal jamono ji mënoon nañu wax ne daal kaa yi commencé woon na fa wàññeeku waaye gis nañ ne nag ab décès daal am na fa koo xam ne ñàkk na fa bakkanam am ci lu soxal nag wàllum koom-koom bi lu ci mel ni réew mii di états ni nag gis nañ ne daal ma ngay rës bu baax a baax lu ñuy wax récession comme comme baa ngay commencé di am jafe-jafe baax a baax Allemagne ñoom tamit seen tuuti waaye tamit dëkk yi ñuy wax euh, Togo ak Guyane euh, ak Chili nga xam ne nag ñoom ñu ngi commencé waat def li ñuy wax de déconfinement bàyyi askan wi ñu delluwaat si seen ité yi foofu nag gis nañ ne mbas maa ngi fay xaw a dal bu baax a baax Chine ak Belgique nag euh, ak Brésil nag foofu nag gis nañ ne mbas maa ngi judduwaat di indilaat askan wi beneen jafe-jafe mu nekk nag loo xam ne jamono ji kilifa yaa ngi ci wéy di ut ay saafara foofu la ca réew yooyu. xabaar yi bitim réew wax ci ab song boo xam ne amal nañ ko ci ab benn prison boo xam ne mu ngi ci dëkk bi ñuy wax Jalalabad bu ñu sukkandikoo ci gouvernement ba daal ay nit daal yoo xam ne dañoo yoroon seen i ngàndaay ñoo song prison boobu nag nekk foofu la ca réew mi di Afghanistan taal fa benn oto indi fa ay jafe-jafe ba nga xam ne daal am na koo xam ne ñàkk na ci bakkanam bu ñu sukkandikoo ci benn kilifa boo xam ne mu ngi nekk ci benn province foofule kuréel gii ñuy wax taliban yi nag nga xam ne ñoom dañoo weex dunq lool lu fa xew rek ñu jiñ leen ko ñoom nag ñu ne laale wu ak attaque bu ñu mel ba ba tax daal ñu ci indi ay leeral. xabaar yi bitim réew. xibaaru bitim réew yi jeex na ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi. xabaar yi bitim réew. xabaaru tàggat yaram. bàkk ba jiip xabaar yi tàggat yaram door Serigne Moussa Kane maa ngi leen nuyu. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu bokk auditeurs yi ñu soobu ci xibaar wu tàggat yaram yi dañu ko doore ak football ca Belgique nag ginnaaw seen ndam ñii di euh, ndaataango Abdoulaye Seck yi nag qualifié nañ ci de groupe Europa League saison gii ñu ñëw waa Antwerp nag daal dinañ jël li nga xam te ne moom mooy coupe Belgique ginnaaw bi ñu amee ndam ci kanamu club Bruges bu Krépin Diatta benn bal ci dara ñu dem ca France foofu nag Paris Saint-Germain na ndam ci kanamu Lyon ci finale coupe de la Ligue quadruplé boo xamante ni PSG réalisé na ko ren ginnaaw bi mu jëlee trophée des champions coupe de France Ligue 1 PSG nag daal dinay jël li nga xamante ni moom mooy coupe de la Ligue Angleterre finale FA Cup ginnaaw ki nga xamante ni moom mooy Pierre-Emerick Aubameyang nag moo tax ba Arsenal am ndam ci kanamu Chelsea ci finale FA Cup ñaari bal ci dara kii di Aubameyang nag daal dinay jox kii di Aubameyang nag moo tax ba Arsenal jël ndam sax ñi ngi ci naqar ak tiis ginnaaw bi nga xamante ne ni fédération camerounaise bu football daal di nay ñuy wax ni kii di Stéphane Tataw génn na àdduna ci juróom fukki atam ak juróom ki fi nekkoon ancien latéral droit da fi tamit capitaine sélection camerounaise ndax di jëloon na nga xam te ni moom d'Afrique des nations ca atum am na 63 sélection ñi di waa Cameroun ci diggante atum ba atum 1994 dem ca Côte d'Ivoire foofu nag moom it kii di Didier Drogba nag dañu ko teeru comme ni ñu teere buur foofu ca buntu fédération ivoirienne bu football bi mu ñëwee ngir déposer li nga moom mooy candidature am ki fi nekkoon ak star football africaine daal dina ñu dëggal nag li nga xam moom mooy candidature am ca Abidjan ca présidence li nga xam moom mooy fédération ivoirienne bu football kii di Didier Drogba nag kàddu yi mu njëkk a ci lamina moom mooy nag dina fexe nag ba nga xam moom mooy dina suqaliwaat lii di euh, football foofu ci Côte d'Ivoire bi nga xamante dafa bëri ay jafe-jafe ñu ca Italie morom Lecce naa di ñàkk ci kanamu par mu ñeenti bal ci ñett Joana am ndam ci kanamu Hellas Verona ñetti bal ci dara Sassuolo ñàkk ci kanamu Udinese benn bal ci dara ñu dem ca Portugal nag ginnaaw bu mu jëlee titre champion bu Portugal FC Porto nag daal dinay réaliser ab doublé nag daal di jël li nga xam te ne mooy coupe bu Portugal ca final ginnaaw bi mu amee ndam ci kanamu Benfica ba ñaari bal ci euh, benn ak ab doublé boo xamante ni kii di Memba moom moo ko def ca final ba ñu dellu soit fii ci sunum réew ngir jeexale ko ak lamb ginnaaw bi mu génnee kaso nag ci ab grâce présidentielle kii di Luc Nicolaï daal di ne nag nokki waata li nga xamante ni moom mooy aéro liberté loolu sax mbégte la ci ñi nga xamante ñoom ñooy amateur yi ndax combat Modou Lô Ama Baldé de combat royal bi nga xamante ni ñu ngi ci doon indi ay jiixi jaacoxat boobaak léegi nag génn kaso kii di Luc Nicolaï tax na ba combat boo daal ñu daal di koy sowee mangoo ko ngoon ne njaay reen gannaaw bu ñu la ñaanalee jàmm lii moo gënoon a fa ci xibaaru tàggat yaram yi déwénati leen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 ahlan bikum inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uuna xalifa bu Medina Baye Cheikh Ahmed Tijane Ibrahima Niass wàcc na liggéey allah l'évidence yéene kaay moo ñu ko xamal ba pare yokku ci ne lu kenn mënta gëm lu kenn xalaatutoon léegi yëf yi bette na lool métti na torop kilifa gu mag banqaas bu rëy damm na ci diine ji ak Sénégal rawatina xadara bi si du quotidien na ko démb ci guddi ci la génn àdduna ca hab hôpital ndakaaru moom Cheikh Ahmed Tijane Ibrahima Niass nag moo nekkoon ñeenteelu xalifa bu bàyyi Niass waaye juróom bu jigéen soxna Mariama Ñang Vox Populi ne Medina Baye kay ñàkk nen seen papa Cheikh Ba bi muy génn àdduna nag xamoon na juróom-ñett fukki at ak juróom-ñett enquête yéene kaay nen naqar ak tiis bu mag dal na ci Sénégal dal na ci umma islamique bi ndax kilifa gu mag xalifa bu Medina bàyyi moo nelaw te bu yàggu dara Sénégal ñàkkaat na beneen kilifa diine doon Pape Malick ba tax tribune yéen a kaay na ko tabaski ren ji kay tabaski gu naqari ñuul kukku ak méttit ak dëj la ko senegal xamale a yaaw seetal jëmm ju mag ju sell wàllu yàlla bu kenn du werante ci taxawu lislaam ci liggéeyal diine ji Sénégal ba bitim réew ñëpp ko xamoon muy xalifa bu Medina Baye Cheikh Ahmed Tijane Ibrahima Niass laas yéen a kaay ne àjjuma samedi ak dimanche bii weesu tabaski goo xam ne senegal dootu ko gaaw fàtte ah Cheikh Ahmed Tijane Ibrahima Niass bu Medina Baye Mansour Kama naka noona reen Marie Faye journaliste les éco yéen kaay na ko ma yokkal la ci xalifa bu mbëllëxe moom it génn na àdduna naka noona njiital xel xom baas laas na ko kon bu buñ koy tënk fa ñuy wax juróom benn ponkal ngoog ku kilifa yu mag ñoo wàcc liggéey kon waaye bi ci gën a mag naqar bi ci gën a rëy mooy xalifa bu Medina Baay bi l'évidence yéen kaay na ko fekki na waay juróom bu tedd ba Baay Ñas borom faydu bi lu nekk liggéeyal na ko diin ji international la yéen kaay wax leen xalifa bu Medina Baay bi génn àdduna papa Cheikh lañ ko doon wooyee papa di firi Baay Baay Ñas ñëpp moom papa cheikh ci mbaax ci tabe ci laabiir liggéey lislaam kenn du moom les éco yéen kaay na ko malaakal mawti kay dóor na fu métti ca xol yàlla laal diine ji ak wàllu koom-koom ba ci taskatu xibaar yi fu nekk jël na fa ab kàngam réew mi ne ko li nga waxee dëgg Mansour Kama moom ponkal la woon ngonk ci wàllu patronat bi l'observateur na ko moo jiite woon CNES lii yéen a kaay na ko ponkal capitaine bu mag jógee na ci bato bi critique yéen a kaay na ko taskatu xibaar yi tamit yi ci Sénégal ñi ngi ci naqar ak tiis ndax reen Marie Faye borom baatu wurus ba ku xarañoon jaar na ci rajo yu bëri Sénégal def fa liggéey bu am solo seede yu am solo nag njiit réew Macky Sall moom def na ko ci Mansour Kama ci lii yéene kaay nee na Sénégal ñàkk na de nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne ñaar téeméer ak juróom-ñeenti doomu aadama corona bi faat na leen Sénégal libération moo ñu ko xamal laas yéene kaay na ko ma yokkal la ci ñu ko fi amagum ëpp nañ fukki junne te buñ ci waxut nag làmbaay fanar a ñaaw maanaam jàngoro ja fa a gën a law fa nar a ray fa nar a wasaaroo ci mi ndax liggéeykat wàllu wér-gu-yaram yi nee nañu fa ñuy xamal geraw dootuñ faj kenn te su boobaa nag xay marché Sandaga toj nañ ko rajaxe daane léegi ko yéen a kaay na ko loolu la gouvernement bi bëggoon di te def na ko taamut benn coow nag Le Quotidien yéen a kaay ba jeex na marché Sandaga ndeysaan rajaxe nañ ko juróom-ñaar fukki milliards nag moom lañ ci war a dugal ngir tabaxaat ko mu rafet ñaar fukki weer ak ñeent ci lañ ko fas yéen a xamal li xam nag ci àjjuma ji mooy jullik tabaski ba tax la solo yéen a kaay dikkaat ñun ci imam seen xutba yi ñu amal ci Sénégal gépp ci bésu tabaski bi moom ji tëram Macky Sall nag ma ngay ñaax ndaw ñi ngir ñu sàmm xaar mag ñi loolu lu baax la ki defaat lu baax ci tabaski bi mooy dimbale askan askan way yeewoo ci diiwaanu kaolax ndangaan l'évidence yéen kaay ne Mouhamed Ndiaye Rahma defaat na mëninam ci tabaski bi ay junne junne njaboot la dimbale ci ci tabaski gu naqari métti lool ndax korona bi nay leer nen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne réewum Sénégal ba léegi réewu Europe yi tubaab yi fa ñoo bañ na suñu avion yi duñ naa dugg seen réew ma ndax corona bi donte Sénégal moom itamit fayeeku na pes mi nee na benn tubaab du duggee ko Europe dugg Sénégal les éco yéen kaay ñu ko xamal li mu xamal moom l'observateur mooy ne tabaski bii xam na ci ñoo xam ne neexut ci ñoom yaaw seetal jaaykatu xar yi fa ñoo lambale jaaykatu xar yi ñu ngi ci ay jafe-jafe ndax xam na ci ñoo xam ne fa ñoo leboon def opération tabaski jënd xar ñëw jaay xar yi ñëw lambu ba tax ñu ngay yuuxu wàllu ne bu leen nguur gi dimbalewut état ñu mën a fay seen bor yi fañ leen a nar a tëj kaso turbine yéen a kaay dëggal xibaar bi na xar yu lambu bëri na ci dëkk bi waaye tamit njaboot goo xam ne rendi wuñu xaru tabaski bëri na fi tamit de ndax ñàkk luñ ko jëndee donte xam na ñoo xam ne ñoom rendi nañu tabaski nañ te nañ ko bëggee yéen a kaay na li ñu mooy Sénégal ñaari tabaskee fi am am doon reetaan kontaan waaye xam na ñoo xam ne seen tabaski neexut jafe-jafe ba tax fañ doon jooy l'observateur na ko ña jooy dëgg-dëgg nag depuis démb ci guddi ba léegi du ñenn ñu may askanu Medina Baye Kaolack ndàngaan ndax xalifa Baye Niass bu mag ba Cheikh Ahmed Tijane Ibrahima Niass moo wàcc liggéey yéene kaay bi na Medina Baye ñàkk na du bi ñàkk na Sénégal ñàkk na umma islamique bi pa ñàkk dëgg-dëgg lii metti na yàlla rek ko sañ a def de xanaa ñu ñaan ko mu taaf ñu ci barkeem te teeru ko ci aljanam yu gën a kawe kër Adel Pambo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 ci turu directeur rajo Alfayda ak personnel bi yëpp ña leen di mastawu waaye tamit nag di leen di jaal lu ñu bokk ñaanal leen mucc ak mucculee jaami bi rek biti ah, tawféex ak taysiir jàngeen jëfati. Le journal Ngoné Ndiaye Reine.